tabarakallah ahsanul xaaliqina bu ko defee rek ni ñu fi tàggoo woon incha allahu taala parce que yéene wëyaate noonu rek ci fan yu barkeel yi nga xam ni tolloon nañu ak moom ci weer wu tedd wu sell wu màgg wii nga xam ni ñu ngi ci nekk muy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di weeru Shaabaan yu di ko wax baraxlu fan yu néew ci des rekk ñu jeexal ko tàbbee ko nag ca weer wa nga xam ne nag moom la yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni mooy weeru xeetam di chahru ramadan ñoo waxoon ni bokk na ci li nga xam ni jullit war na ko bàyyee xel boppam ñu tàggatoo woon ak yéen ci li ñu tudde muhaasabatu nafs ñu gën cee góor góorlu góorgóorlu tabaarakallah asnul xaalixiin a gën cee bàyyi xel kenn ku ci nekk rek defaraatal yàlla subhaanahu wa taala sa bopp ci wàllu xalaat ko jëkk buñ ko xalaatee subhaanahu wa taala xalaat ga def ci ñun fa tabaarakallaa sunu xaaliqiina jeexitali yëg ko di yëg gabar buñ ko xalaateen noonu ba xalaat ga ñu koy xalaat def ci ñun jeexitali yëg ko yëg gawar moo am solo mawlaaya ahmed yal na ko yàlla fayal xeet wi sijidi wa mawlaaya دي سيد شيخ احمد تجان سال مكتوم رضي الله تعالى عنه مودان وخني ليك يالا سي نيت اوب نيت فتبارك الله سنور خالقنا نيوي صخ رك سي ديكو نيانال يالا دولي كوي لير دولي دوت سي موم نيرو يرمانديم يا اك يو غرمم يا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñu ciy putuxlu it di ziar sunu soppe sëñ Moxtaar Touré wiiri wiiri di soppey Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum kon buñ ko xalaatee xalaat ga te mooy xalaatee ko xel mi ndax nit xel la ak xol ak cër ya jëmm ji daal di taxaw bu ñu ko xalaatee xel mi fexe ba yëg ko yëg gawar mu jur walla mu dolli ci ñun cofeel gi nga xam ne ameel nañ ko ko muy delloo mbàttu cendaa la cofeelug delloo mbàttu cendaa la ndax bi ñu kenn laata sopp subhaanahu wa taala moo nu jëkk a soppal boppam su ko defee bu ñu amee yëg-yëg googu ci moom nag subhaanahu wa taala ñoo feddaliwaat fa tabaarakallah wax sunul sunu mbokk daara di oustaz Mouhamed Fall nekk fii ci rajo Safina di fi def ay jotaay yu am solo tabaarakallah sunul xaaliqina ak soxna maam Fatou Cissé nekk di soxna ku baax kii di sëñ Ibrahima Fall sëñ Ibrahima Fall mii nag bokkoon ci auditeurs yi Safina yi nekk di sëriñu soxna Mam Fatou Cissé lañu oustaz Mohamed Fall wax ni moo nelaw léegi wuyu sunu boroom subhaanahu wataala taala na yàlla teroo ko yërmaande ma ki njëggalam ci dara jent bi alayhi salaatu wassalaamu ñu di ko jaal mboolem safina gannaaw ba ñu ko jaalee soxnaam ma ki njabootama ki kii bokkam yépp di ko jaalit al oustaz Mouhamed Fall ñu ngi ñaan sëñ Ibrahima Fall yal na ko yàlla subhaanahu wa taala teeru ci aljanna yu kawe ya di aljannay firdawsi ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak bépp jullit bu mu fekkeek bu ko fekki ci daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa kon fa tabaarakallah asnul xaaliqina bu ko defee rek eh, ñu toll ci fan yi nga xam ni nag ci lañu ñu war a gën a defee nag yittey eh, xalaat ne ñu ngi waaj a tàbbi ci weer woo xam ni war nañu cee fexe ba ci fan yi des ci weer wi di Shaaban kenn ku ci nekk daal fexe ba defaraat sa digganteek sunu boroom subhanahu wa ta'ala ci wàllu xalaat ko ci wàllu subhanahu wa taala yëg ko ci wàllu subhanahu wa taala delloo ko ca moom nag rekk uufoo ko ca moom te muy tuub gu wér ci wàllu feddaliwaat sunu ngëm dëgëral ko ci moom ci wàllu dund ko fa tabarakallah sunul xaaliqina ci biir ak ci biti tàbbee ko noonu nag ci fan yu barkeel yi nga xam ni mooy ñëw di weeru koor di li yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni a mooy weeru xeetam gannaaw ba yàlla jëre rajab muy chahrullahi chaaban topp ci di weeru yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wa tànnal ñu nag ramadaan mu nekk di weeru dellu ci yàlla jéggaluwaat yàlla sanguwaat ba set beesaat peq fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina yal nañu ko yàlla nangu leen noonu su ko defee weeru koor euh, la ñu booleeg baat ba di la laallakum na ja ndax ngeen jaara fi ragal ma nga xam ni buy jeex rek buy jeex rek moom weeru koor lan mooy taxaw weeru acc mooy dal di taxaw su ko defee ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala mboolem ñi nga xam ni fas nañu yéene aji ren màkk yépp ñu commencé ñoom tamit di bàyyi seen xel ci ni weeru koor yi bu fan yi jeexee rek ar ku ne armal nga armalu xol armalu tabarakallahu dëkkmal barab yu tedd yooyule di makka al di madina al munawwara te li tax ma dugg foofu nag fii ñu nekk di Safina FM sunu directeur bu baax bi di sunu njiit lu tedd li ñu koy ñaanal fu ñu toll naan yàlla na ko yàlla mottileel ay yéeneem ci dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam te ñu fekk lépp te tal ko ni Safina FM ame noonu it la safina xaj amee nga xam ni fa tabarakallahu asnul xaaliqina ay ate ngi ca gannaaw organise organiser aj fa tabarakallahu asnul xaaliqina di ci di ko ànd ak jaamu yàlla yi ren nag safina taxaw beneen taxawaay ci wàllu aj gi ngir fas ko yéene doxal na mu ko daan doxale nag ci kattanu yàlla ak mbaaxam xam naa du ñàkk incha allahu taala tuuti daañ ci dalal sunu kilifa gu tedd gi di imaam Cerno Hamid Yero tabaarakallah sunul xaaliqina ci wàllu woowu ñu waxtaan ci e boole kook fan yi nga xam ni mooy dëkkmal si ci weeru koor gi incha allahu taala ñu ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla nañu boole nangul yéene yépp kon daal ginnaaw ba jullit bi xamee li ko booleek weeru koor lu mu doon te mooy waxoon nañu ci jotaay bi weesu ni war nañoo dëgëral sunu ngëm ci yàlla subhaanahu wa taala gën koo feddali takkuwaat takku bu ni toll defaraatal yàlla sunu bopp subhaanahu wa taala ngir mën ko tàbbee ci bis yooyu nga xam ni moom la farataal ci ñun ñu di ko wooral fanam yu barkeelam yooyu le ñu waxoon ni ci weer wi ñu toll di fa tabarakallahu chaaban nga xam ne buy jeex ramadan di ñëw ci la yàlla subhanahu wa taala farataale ci ñun woor weeru koor ci aaya bi nga xam ne ñëpp miin nañ ko di gannaaw audu billahi min alcheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna faratal naa ci yéen koor di yéen ñu gore bëggam ma ni ma ko farataale woon ci ñi leen jiitu woon ña te mooy gaay yu baax yu démb ya ndax fanam yi barkeel yi bu jàllee ngeen jaare fi fa tabarakallahu rekk mu def ci yéen jeexitali ragal ma e ñu waxoon nag ni baatu fanweer waxoon nañu ci wolof mooy rekk fani weer wi wolof ni fanweer waaye mooy fani weer wi mën na nekk di 30 jours di fanweeri fan mën na nekkit di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yëpp bu mu ci mën a doon fan yi weer wi la yàlla subhanahu wa taala nag bëgg ñu defee ko ci anam goo xam ni dafay ànd ak na mu ko bëgge moom subhanahu wa taala te mooy bañ a jël sunu koor def ko koor googu yonent bi bañ alayhi salaatu wasalaam dal xeetam te mooy kooru way sàggan ña ñu ne yonent bi kooru way sàggan ña ñooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ni seen koor yonent bay wax de alayhi salaatu duñ ca amee lu dul yendoo xiif yendoo mar mu jeex ñu ne ko loolooy lan mu ne waaw koor goo xam ni dinga yendoo xiif yendoo mar waaye doo fekk saw làmbin ci jëw doo fekk sa làmmiñ ci wax loo xam ne du yiw doo ca déglu yiw doo ca dox yiw te ni da ngaa woor nee na bu jant soo xamal ni sa koor ga mi ngi yem rekk ci yendoo xiif yendoo mar ñu ni yonent bi kon nu ñuy woore mu ni da ngay woor sa cër yëpp it nga jël leen ci koor googu te mooy cër yi nga xam ni ci la doomu aadama di defe lu neexul boroomam loxo cala la làmmiñ ca tànk cala la nopp ca la bët cala yépp dañu war a àndandoo ci fan yi des ci weer wii di chambaan ñu waajal leen noonu ba bu koor gi ñëwee rek ñu mën a tënku ca fa nga xam ni moo neex yàlla subhanahu wa moo tax ci weer wii di fan yu barkeel yi nga xam ni mooy chambaan anas ibnu malik waxta ni bokk na ca nañu yonent bi waajale yaree nu ko daawuñu xaar sax ba wéru koor ñëw ñu delluwaat ci alquranul karim déedéet dafa ni fa ida xalla chaban كان المسلمون إذا حل شعبان أقبلوا على المصاحف يعني تي وير وي بوغا خامني يونت بي مي ني وون موي فان ييغا خامني فلا ني تولول تي جيهتو وير وي دي شعبان نانا بوما سان تيرو ريك جوليت ييب دا نيو ديلو تي تيري يالا با نيو غاي نفارات نيو غاي نات سين بوب تي آيه di natt seen bopp ci santaane yàlla yi di natt seen bopp ci tëkku yeeg tere yi nee na moom la ñuy waajale seen bopp ngir bu chaban di jeex rek ñu duggee noonu ci weeru koor àndandoo ko ak moom nee na daawuñu xaar ba weeru koor ñëw ñu soog a uppi téere yi déedéet ci weer wii di chaban lañ koy tàmbalee aqbalu alal fii dal di génne duñ ca yem de wa axraju zakata amwalihim nee na ci weer wii lañ daan dajale alal yi borom alal yi di dajale seen alal di ci génn seeni azaka ci weer wii di Chaabaan gën fee rawati fii fan yu tolloog ñun di xalaat teel ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw ngir ñu mën a am xel mu dal mu ñu mën a woore weeru koor te duñu xalaat lu ñu dogoo nee na ci weer wii di Chaabaan ci lan daan génne yooyu lu tax yaa ayyuha alladina amanu la yàlla wax yéen ñi gëm yàlla waxul ni yéen ñi woom la de yéen ñi gëm te ñi gëm ñi om oomlee ngi ci ñi ñàkk ngi ci comme ñi ñàkk ngi ci te ñàkk ga du tax la yàlla santaane teggeeku leen farata la bu tegu ci ñoom nee na su ko defee nag way oom lañu nag daal di xalaat ñi ñàkk ni ah ñoom de war nañ leen teel a taxawu ndax ñu am xel mu dal mu ñu woore ndax xel wóor gi dal na ci ñoom su ko defee ñuy fàttaliku léegi way ñàkk ñi di leen dajale lañ leen di dajaleel di leen ko jox ndax bu weeru koor gi ñëwee ñu àndandoo mën ko woor te na ko yàlla subhaanahu wa santaane baatu la àllakum na jooju nag ndax ngeen jaara fi ragal ma mu farataal ci ajit nga xam ni mooy topp ci koor nga xam ni fan yi bu jeexee rek aj taxaw na te yóbbal ba mu ca soxla nag ci aj mooy ragal yóbbal ga mu ca soxla ci aj di yóbbal bi gën ci yóbbal mooy ragal yàlla ragal yàlla nga feeñ ci kaw mën nga ko feeñ ci kaw wér nga feeñ ci kaw am nga feeñ ci kaw tàggat sa xol ba muñ nga ca war ci yoonu aj wi yépp nga def ko feeñ ci anam yépp nga jël ragal yàlla googu subhaanahu wa taala yóbbuwaale ko bu ko defee nag jullit yooyu nga xam ne nag ñoom la dogal ci ñoom woote ba dal ci seen kaw ñu aji ñooy représenté mboolem jullitu àdduna bi yépp nga xam ni demuñu bu ko defee nag noona lañ koy toppee noona moo waral ma wax léegi ni Safina FM yemul ci doon Safina FM rek waaye Safina xajjit mi ngi ci biir ci kàttanu yàlla subhaanahu wa ak mbaaxam at yi weesu yëpp def na ci ay taxawaay yoo xam ni yu mucc ayib la yu jéggi dayo la ci mel na mu war a mel ci sédd ci yàlla rekk ci anam goo xam ni bokkul ak ñeneen bokkul ak neneen lu dul ni ki yàlla dogal mu jiite ko mooy sunu kilifa gu tedd gu baax gi di imaam xaaji Cerno Yorobaan moom de bosam te mooy Safina Haj wutul lu mu ciy dajale di bénéfice boo xam ni dafay dellu ci moom déedéet li mu ci wut mooy jaamu yàlla yi nekk ci kaaraange gu wér nekk ci kóolute gu wér ci jéem a aj aj gu wér def na kemtalaayal kàttanam ci muy màkk di Madina fa ñuy dal du doon barab yoo xam ni dana leen sonal lool ci ay déplacement bu dee Makka dana jegeñ masjidul euh, masjidul haram bu dee Madina dana jegeñ masjidul rasul di bàyyi xel tamit ci anam yépp lépp lu war ci aj ak aj goo xam ni kii dem dana ko aji yooyu yépp incha allahu taala waajaat na geneen waajtaay nag go xam ni du ni wuute naag yi paase de waaye am na yeneen yoo xam ne tamit xalaatal na ko boppam ci ndimbalu yàlla subhanahu wa taala ak mbaaxam ngir rekk bañ ñiy dem ci safina di aji bañ a ànd ak benn jaaxle bañ a ànd ak benn tumuranke coono du mën a ñàkk nag waaye su ko defee rek mu yem ca coono ya nga xam ni rek mooy ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajoon ak sahabaam yu tedd ya di ñaan yàlla subhanahu wa taala nangu leen ko ci noonu wolof nag moo ni looy séentu ëgsi na te lu ñëw dem na àdduna moo bindoo noonu looy séentu agsi na te lu ñëw dem na koor gi ñuy dëkk mën si nan jàpp ne si na yàlla na ko cër yi yëkk ci wàllu ragal yàlla gawar bu weeru koor bi jeex rekk aj taxaw looloo waral ñu bëgg di boole nag ci jamono yi sunu waxtaanu koor di ko lëkkaleeg bu acc incha allahu taala ba yañ ca war a teewlu yëpp ci kàttun yàlla ak mbaaxam ak ndimbalam ñu mën ko teewlu teewlu ga ca war kon imaam xaaji cerno yorobaan gannaaw ba ñu la ndokkeelee ci sunu yoon wu tedd wu mag wi ñu bawoo di xalwaar ca kanamu góor gu tedd ga di bàyyi alxaaji cerno Mouhamed Bachir Muntaga Daha Taal nga xam ni tey mooy rek Cheikh Al Hadj Umar radiallahu taala anhu ci àdduna bi yépp nag tabaarakallah sunu xaaliqiina at mu jot ñu dem fa demaat nañ fa ba ñëw et dëkkmal weeru koor te weeru koor bu fanam yi jeex rek weeru aj taxaw ñu fas yéenee nag ñëwaat ci fàttalanteeg layante biir ci yooyu nga xam ni ñooy xew-xew yi jaamu yàlla yu sell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 حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وصلى الله وسلم على أكرم خلقه وأفضل رسله سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم Imam موسى يو ak mboolem ñi déglu seen émission dëkkandoo jàmm ci gën di ndeyu émission yow ak ñoom ñépp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ak yéen moom amul ci yéen ba ma leen di bal wante ci waxim man tamit maa ngi leen di bal ñun ñépp nag yal nañu yàlla boole jëggal amiin bi jaahi rasulillaahi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu nu sant yàlla subhanahu wa taala cant bi war yelloog dayoom ak màggaayam di julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moo njëkk sant yàlla subhanahu wa taala ci xadaratul xay bi laata kenn xam nu ñuy sante yàlla ba sant ko bi mu wàccee nag yàlla jàngale ñu cant jaarale ci moom mu jàngal ñu mu ne nañu ko sant bu ila yawmi diin sant waahir ak sant baatin lépp nag nekk waahir bi nga xam ne ñëpp ñu ngi koy wax donte teewlu ñu cant googu dafa yéege ba cant démb mooy alhamdulilahi rabbil alamin ku yàlla baaxee am xel yàlla defal ko tawfiq lépp lu mu am ci àddina mu xam na ci yàlla ci yàlla la bayu ba bay ko mu bari maa néew me reconnaître may googu mu ne alhamdulillahi rabbil alamin wa qalilu min ibadiya shakur nag la yàlla wax mu ne néew na ci jaam yi nga xam ne dañuy gis xéewal li nga xam ne moom lay leen yàlla defal ba toog di wax ne alhamdulillahi rabbil alamin comme ni nga waxee léegi ci koor gi macha allahu sa waxtaan bi amul dara luñ ci war a teg lu dul déglu ko jëfe ko te yàlla may nu dégg li nga wax ñu jëfe ko te yàlla nangul nu li nga war a fegu ci sa cër yépp mhm. xeewal lanu mhm. làmmiñ xeewal la mhm. bët xeewal la nopp xeewal la loxo xeewal la tànk xéewal la mm-hmm. même bakkan sax bi nga xam ne doo ko xalaat benn yoon mm-hmm. xéewal la wante néew na ku toog mm-hmm. wéet ak boromam mu ne sama boroom maa ngi lay sant di la gërëm ci bile xéewal bi nga ma defal xéewal bët maa ngi la ciy sant néew na ku koy def xéewal nopp néew ne ku ko sant xéewal lëmmiñ li muy mos ak li muy wax xéewalu bëñ ak lépp li nga xam ne ne gémmiñ bi ëmb na ko dem ba xéewal cër yépp qalilu min ibadi shakur néew na ci jaam ñi nga xam ne dañoo toog rek ñu wax ne alhamdulillahi rabbil alamin li ñuy xalaat kay mooy nga lekk nga nga suur nga ne alhamdulilah rabbil alamin sa bekka bakkan amul woon ndax lekk dina am déedéet loxo amul woon ndax tibb dina am déedéet tànk amul woon ndax togg dina am sa gémmal amul woon ndax lekk mën nga koo sàq mi hmm. yooyu xeewal yépp nag wa qalilun min ibadiya shakur dañuy wax kay yàlla may na ma ma lekk ba suur naan sama ndox ba géex ma ne alhamdulilah rabbil alamin wante nag boobu baax na <laughs> wante yeneen yi ñoo ko jiiku te wax wa qalilun min ibadiya shakur même boobu sax am na ñu koy fàtte. <laughs> boobu am na koy fàtte. soo la yàlla maye. Mhm. def at. yaa ngi libéré cër yooyu. ba benn weer ñëw. ñu ne cër yooyu yépp na nga leen jéggalul te nga taggat leen ci wàllu yàlla mhm. ndax yoon yoon bi salaa sallam mu ngi wax ne yàlla nee na mhm. assawmu mhm. wa ana ajzi bi ah, koor man maa ko moom te man maa koy fay boromam amul benn malaaka buy jaar sama diggante ak jaam bi ba fay ko man maa koy sabab fayal sama bopp mhm. boobu nag su la yàlla waxee ne na nga woor yonent bi sallallahu alayhi jàngale ñu nag nañu lay woore mhm. mu ne cër yëpp nañu woor mhm. su booba loolu war na yomb ci nit ñi dëgg bi ngay wax léegi sama xel dem ci benn baat bi wolof di wax soo waxoo soo waxee li nga xam nga def li nga mun hmm. soo tëddee nelaw wante nag soo waxee li nga xam hmm. nga def li nga mun hmm. ci jaamu yàlla yi yàlla fay la nga jàng alquran ci li nga mun ak li nga li jëfe ko noonu fay la nga li nga mun ci jaamu yàlla yi yàlla fay la la kon li nga wax yépp macha allah matale na bi ngay wax sama xel dem ci ñi ubbi alquran ci wéeru koor gi nañu bàyyi xel mm-hmm. yàlla mu ngi wax ak nit ñi mm-hmm. ci njalbeenu suuratul baqara mm-hmm. gannaaw bi nga ubbee faatiha mu walla foofu ñetti nit ñoo fi ne ñetti nit yooyu moom la yàlla ubbi alquran bi soo jàngee fatiha bu ñëw ci iyyaka naabudu wa iyyaka nastainu mhm. yow yàlla yow la ñuy jaamu mhm. naabudu boobu nunul jamci la mhm. ñeneen ñi ñu foog ne ne boobu yow ak jaamu yàlla yépp am na ki waxoon ne ne kenn musul julli moom kese ku julli moom kese rek dana la jox biye mag <laughs> آه، سني سيرين بي وباخ بي نجول فوتا ما شاء الله جزاه الله عن الأمة الإسلامية خيرا أمين أمين وحفظه الله ورعاه أمين بجاه سيدنا وأيده ونصره أمين بجاه سيدنا نحن وإياه وجميع المسلمين أمين بجاه سيدنا آه، سوكو خوالي بو باخا باخا باخ جمعي بوبو نيونكو ياتل تي <laughs> وانت بلا مو نيو تي نيتني دابور سكي cër yi yépp ñooy ànd ak bakkan gi di jaamu yàlla teewlu ci la yar ci la dal ci la taxawaay taxawaay bu mot ci la jàng-jàng bu tey ci la lépp li nga xam julli bi euh, recommandé na ci wàllu xushuu wal khudu' lépp mu ngi ci biir xusu aussi xol la xudu aussi cër la lépp mooy noonu lu jamci bi iyaaka naabudu cër yëpp nañu wa motu jaamu yàlla wa iyaaka nastainu cër bu am dara rek ndimbalum yàlla la su loxo jógee su loxo nuyoo walla banku walla talli yàlla su tànk yëkkatikoo dem dikk yàlla su gémmiñ ubbeekoo tëju di wax mbaa di naan mbaa di lekk yàlla su nëpp dégloo yàlla sa bët gisee yàlla soo biir feese bii côté am ndox bii côté am ñam mu nekk foofu liggéey ci yaram bi boo li nga xam ne moom moo war a génne lii liggéey ci yaram wi yaram bi di ko jëriñu yàlla lii génne tamit nu muy génne yàlla subhanahu wa taala kon nag lépp ndimbalum yàlla moo ci addu su fekkente ne limbalul yàlla nekku ci dara du ci baax kon wa iyyaka nasta'in mm-hmm. léegi nag yàlla mu ne lépp nag li ngay jaamu yàlla na tegu ci yoon wante lépp li ngay yëngu ci kaw suuf pour nga jëriñoo ko mm-hmm. na tegu ci yoon mm-hmm. mooy siraatal mustaqim siraatal mustaqim nag yombul wante mu ne am na groupe bi nga xam ne soo leen royee rek nga dem ci siraatul mustaqim mm-hmm. ma mina nabiyina mm-hmm. yoonu yonent yi mm-hmm. li yonent yi doon def nga fexe ba xam yooyu jëf lan la nga roy ci noonu nag duñu sonn ndax kenn lañu yàlla booleel mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom nanu innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq kon nag jikku yonent yi jëfin yonent yi waxin yonent yi jaamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom soo ci xamee dara nga roy ci rek yaa ngi ci salaatul mustaqim <laughs> wax siddiq yi ne ak ñi nga xam ne nañ ñoo déggu ñoo déggu dañoo bari wante nun yàlla noppal nanu am nanu royokaay mooy abu bakar siddiq radiyallahu taala sopp bu mu sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mhm. bu mu gëm rasulullah sallallahu alayhi wa mhm. nangu bu mu nangul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga gëmee noonu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam toppee noonu rasulullah incha allah soo ko defee nga am ci ndam mhm. wa shuhada mhm. dañoo bari la wante dañoo noppaliku mhm. shuhada yi nga xam ne ñoom la ñu war a teg suñu kanam mooy ñett Seydina Omar shahid la dëgg la njaambaaram ci lislaam yow tamit nga nekk jaambaaru lislaam taxawaayam ci lislaam yow tamit nga nekk nga am borom taxawaay ci diine gi déggoom ci lislaam nga nekk ku déggu ci biir lislaam uh-huh. ak yeneen ak yeneen ci jiggu ak qualité Seydina Omar uh-huh. nga fexe nga am ci uh-huh. Seydina Ousmane shahid la moom tamit nga fexe jikkoom ci lislaam nga am ci dara tabeem bi mu tabe ci lislaam yar am taggin bi nga xam ne moom la am ci kanam rasulullahi sallallahu ak kersa bi mu am ba malaaka yi di ko rus ak quran bi nga xam ne moom la taxaw boo teetee ji téere yu bari soo ko gisee da gis ne ñu ngi ar rasmul usmaan yi mbindu ñu Seydina Usmaan mhm. moom mi nga xam ne moom moo dajale alquran nga bëgg alquran mhm. bëgg ñooñu alquran bëgg diine taxawu diine gi ci sa cër wante ci sa poche dëgg la nga def lépp li nga xam ne ne loolu nga am mhm. ci diine gi nga loolu nga loolu li nga xam ne yàlla warsikal na ko warsikal na la nga delloo ko ci diina bi nga am kes loolu nag moo gën a am solo nag alxayaau min al imaani alxayaau la yaati illa bi xayrin loolu rasulullah salaam wax mu ne kersa ci ngemu yàlla la bokk te mu ne kersa du indil nit dul jàmm kon nga am qualité boobu shuhada beneen bi mooy Seydina Ali moom tamit shahid la moom shahid googu nag taxaw bi mu taxaw ci lislaam bu mu ne doonee ndaw bi mu bi mu feeñagul sax ndax yaayam musul suñu dal sanam bi mu nekk ci biiru yaayam kon nag tawxiidu Seydina Ali tawakkulu mooy wakkilu Seydina Ali mhm. ak taxaw diina lislaam ci Seydina Ali ba ñëpp xam mhm. yow tamit nga nekkee noonu mhm. su fekkente ne seen génération yëpp ma nga xam ne ne sori nanu mhm. wa saalihin mhm. gaa yu baax yi ñu yàlla boole Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala an nga roy ci Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiallahu nga bañ roy roylu mais nga roy dëgg dégg dégg ñi nga xam ne ñoom la leen yàlla boole ci Cheikh na Ahmad Bamba radiallahu anhu ñu bañ a ñu roy dégg dégg dégg Cheikh Ahmad Bamba ñu julli ndax moom dafa doon julli mhm. mu woor ndax ñu ngi doon mu ngi doon woor mhm. mu bëgg alquran ndax moom bëggoon alquran mu sopp rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax soppoon na rasulullah sallallahu alayhi wasallam loo def lu dul lii soo askane sa bopp ci ahmadou bamba yaa ci boole sa bopp wante ahmadou bamba radiallahu taala anhu boolewula ci boppam loolu moom ñëpp reconnaître nañu kon nag ñi nga xam ne dañoo askane ci moom war nañu seetaat seen bopp. dëgg ñu teg ku seen kanam. ndax moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na teg kanamam. deful rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nawle. déedéet dafa wax boppam xaadimu ar mbindaanu rasulullah. Mhm. serviteur. Mhm. xam nga serviteur moom bokk boolewul boppam ak borom kër gi. Hmm. kon nag moom dafa teg rasulullah sallallahu alayhi kanamam. Mhm. mu topp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jéego ak jéego yow tamit soo defee ahmadu cheikh ahmadu ma radiallahu taala anhu si sa kanam nu mu defee rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci kanamam yow tamit noonu nga ko war a def mu nekk intermédiaire sa diggante ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekk intermédiaire suñu diggante ak yàlla subhanahu wa taala kii jàpp si Mawlana Cheikh Al Hadj Cheikh Abdul Qadir Jilani moom tamit def noonu ak saalihiina ñëpp su ñu defee loolu rek incha allahu euh, dana baax mm-hmm. mais su ñu wàccee yooyu toujours ci njumti rek la ñuy dem mm-hmm. te fii kenn ku ne mën na fugg sa dënn mën mm-hmm. a mën a mën wante ëllëg yowmal qiyaamati mën a mën amul foofu man dal ladi yashfau indahu illa bi idni illa man dal ladi yashfau indahu illa bi idni ëllëg yowmal qiyaamati koy mu kan moom mun a yëkkati baaraanam mu ne mënata yàlla yàlla àndu ci wax na ko ci alquran su ñëpp ne nem ci kanamam mu ne li ma nel mulkul yow ma buur bi nga xam ne ne moo gën a kawe tey tey jii ci àdduna bi ñebewul wax dara <laughs> rawatina suñu buur ndaw ndawaan yi rawatina suñu suñu chef de quartier yi allahu akbar <laughs> noppi <laughs> mu baamtuwaat ko Mm-hmm. boobu bis bis boobu dafa feeñoo ci jalaali jotoom maggayam ak mboolem dayoo nguuram yëpp dafa koy feeñal bis boobu kenn du ñeme wax man kenn ñu du ñeme war a wax man mu dem ñëwaat dem ñëwaat mu ne lillahi alwahid alqahar mu topp tontu boppam mu ne bi man kese maay te foofu njàngat bu rëy du ngi foofu mënoon na wax lillahi alwahid arrahman ndax waxoon na wa rahmati wasi'at kulla shay <laughs> tey buur amul ku dul man bi bari yërmande gi allahu akbar ndax moo ne wa rahmati sama yërmande wasi'at kulla shay wallaahi wante indiwul euh, sifa boobu mhm. melo boobu bis boobu indiwu ko mënoon mhm. na wax ne lillahi almaliku rahim mhm. ndax moom aji yërmat ak aji koy yërëm ñi gëm bis boobu dugg aljanna wante terme boobu kiwu ko Mhm. xam nga lan la indi. Mm. taxaru. est-ce que mooy noteel mooy pouvoir. Mhm. mooy force. Mhm. lay wone bis boobu. léegi-léegi nag nga gis ko ci ba àdduna mën nga bokk ak benn gendarme ndi ak baay. soo selewul te ngeen kaf ngeen ree. nitu simple la. comme yow. mais su solee te nekkaat beneen nit mais soo am nekkee ci ordre nekkaat encore beneen nit foofu amul xarit amul mbokk ordre bi rek lay kii lay suivre kon nag yàlla bari yërmande fii ci àddina bari yërmande àllaaxira mais bis boobu ñëpp koy wut <laughs> yonent yeeg yonent yeeg ñëpp <laughs> rawatina nit ñi kon nag nañu xam li ñu am lan la soo xamee li nga am su boobaa ci nga koy mën a jàppe yàlla may nanu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu roñukaay mm-hmm. may nanu sahaaba rasulullahi mooy suñu royukaay ci rasulullahi sallallahu alayhi ak yàlla yàlla yonent bi sallallahu alayhi moom gisul lu dul yàlla sallallahu alayhi wa yi gisuñu lu dul yonent bi sallallahu alayhi bi leen won yàlla dëgg la mais defuñu rasulullahi mooy yàlla dañu koo roy ñoom ñëpp ñu bokk jaamu yàlla mm-hmm. saalixeen yi tamit gis na sahaaba rasulullah sallallahu yi sallallahu sallam yi ñooy sahaaba rasulullah sallam ñu baax lanu ñu def leen seen royukaay ci coofeel rasulullah defuñu leen mooy rasulullah déedéet defuñu leen mooy yàlla mm-hmm. nag sahaaba sahaaba la mm-hmm. rasul rasul la kenn ku ne ak sa garat soo jaxasee nag nga def saalix nga yéege ko ci bañ martaba rasulullahi jum nga dëgg la rawati nag nga def saalix nga demee yéege ko ba martabatul uluhiyati ba nga dend la ko ak yàlla hmm. foofu nag yàlla du baal déedéet mboolem njumte yépp yàlla dina ko baal lu dul loolu إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يلا ذو نمو كن دوك دندل أكمم نيت يوينك بن بن سرات المستقيم ني نيو تيغو سرات المستقيم امنا بنن كوريل مي المغضوب عليهم مي يلا مرن لين دافا يلا مري ليك ليك ني واخ واخودي يهوديه وانت دو يهوديه كاسه كاسه دغلا même jullit yi am nañu uh-huh. ñu def mbir bi nga xam ni jaaduwul yàlla meral na leen ci li ñuy wax ak ci li ñuy jëf ndax dañoo xam dëgg uh-huh. duñu wax dëgg dañoo xam yoon ñu doxal yoon kon yàlla dafa leen mere am na ñeneen ñoom xamuñu dara uh-huh. te li ñi leen jiitam xamuñu dara ñoom ñëpp ñu bokk ak ci réer bi ñom tamit amuñu place kon nak siraatal alladhina amta alayhim bobu ben kurel la al maghdubi alayhim bobu beneen kurel la wala daalin beneen kurel la moy kurel al munamu alayhim munamuna alayhim yi nga xamne yàlla xewalal len ngëm xewal len jaamu xewal len top parce amna am kurel bi nga xamne ne yàlla dafa mare ci jaamu dafa mare ci waxin ci seen li ñuy wax dafa mere ci topp duñu wax waxu yàlla suñuy waxee wax ci li nga xam ne ne kenn xamul lu mu doon duñu jaamu yàlla te ñu dende lay yàlla ak keneen ci dafa mere mhm. ku yàlla mere nak maaratu elin yaakaar naa ni ëllëg du am yiw Fi nak mën nga def loolu neex wala daalin ak ña ne ñoom ñoo leen topp xamuñu dara te duñu dam duñu nangu xam xam ñàkk xam c'est-à-dire xamuñu am na ñoo xam ne sax xam nañu xamuñu wante not nañu leen du ñu nangu xamuñu wala ñemewuñ sax xamuñu dégg xamuñu dañoo dugg ci biir réer rek ànd ak réer di dem di di dem di di dem di wéy dëgg la ñooñu tamit amuñu place kon nag ñooñu la yàlla ubbi alquran bi yàlla wax ne alif laam miim ñu bari dañu wax ne allahu alam bi muradi bi mu ne daalika alkitaab bii téere te téere bii nag mooy dëggal diine gi kon nag bii téere ak bii diine ndax téere bii du dem te diine bi ñëwul diine bii du dem te téere bi ñëwul dëgg la dalikal kitab bii téere bi nga xam ne moom moo leen di nettali diine gi laa rab fi lu mu leen wax daal amul sikki sakka noonu la ndax ci yàlla la bàyyi ko laa yaatihi l baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanzilu min xakimin xamid ah, téere bi ci yàlla la bàyyi ko mhm. amul njuumte amul leneen li nga xam ne ne kenn du mun nañ ci dugal leneen ndax yàllaa ko wattul boppam téere bi innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu la xaafizuun mu ne bii téere nag bi nga xam ne daf leen di xamal seen diine laa rayba fii sikki sàkk amul ci bee téere bi hudan lil muttaqiin fan la tontu bi nekk suuratul naas hudan lil muttaqiina min al jinnati wan naas hudan lil muttaqiina min al jinnati wan naas Mhm. ci nit ñi ak jinne yi ñi nga xam ne alladina yuminuuna bil xaybi mhm. dañoo gëm li faddu mhm. mooy yàlla ñëpp dégg nañu yàlla am na gisuñu ko mais gëm nañu gisuñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante gëm nañu lépp li nga xam ne ne wax na ko xam nga lii firnde bi mm. mooy alif laam bi kenn mënu ko firi وانت جمنا نشي يلا بايكو اسكي غاي بولا الف لام ميم بوب كومبلا غاي بولا واو دون خم يلا دون خم مو فنك مو نيو كي خمال دغ لا يلا يلا نيو خم امين لي سيدنا محمد ويقيمون الصلاه نيغا خم ني دانيو گيم يلا با بار ما بات شهاده الله اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wa yuqim wa yuqimuuna salaata ñu uh-huh. sax ci julli nag uh-huh. ndax wax na ne gëm naa yàlla uh-huh. baax na gëm naa rasulullah baax na wante du doy fakke nga nga manifester ci li nga wax ne danga koo gëm fakke nga manifester ko nga wane ne gëm nga ko ci la julli ñëw dëgg la yonent bi nee na al ahadu alladi baynana wa baynahum dëgg la différence suñu diggante ak ñeneen ñi mooy julli ku gëm yàlla daal na ñëw julli ku julliwul daal dañu koy classé fale si ñale ci lu wér waaw wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun asaka ñëw ak zakat bi nga wax léegi soo gëmee yàlla bu baax a baax a baax dangay manifesté woo ci sa cër nga jaamu yàlla nga manifesté woo ko ci sa alal nga joxe ko fii sabilillah walladina yuminuuna bi maa unzila ilayka وما انزل من قبلك ما يكون اك اج كور امون في افان رسول الله صلى الله عليه وسلم اج امون في افان رسول الله صلى الله عليه وسلم مي بيمو نيوي نك نونيو ووري ني لول لا يالا ديغلي نونيو اجي ني لول لا يالا ديغلي ني دال نوي بريمير كورل لي كورل بي نوني نك اولئك هم المفلحون اسكي نمشي على بوله موي كورل ييغا خامني دانيي وموتو ci ndigalu yàlla ak yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam roy gaa yu baax yi ñoom ñooy muflixuuna yi am na beneen kuréel mooy ñi nga xam ne mooy maxdubu alayhim inna alladina kafaru sawaun alayhim a anzartum am lam tum laa yuminun limaada xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absaarihim xishawa wa lahum azabun azim ñi nga xam ne dañoo lànk gëm naa yàlla gëm naa yont bi mais duma julli duma woor duma def lu baax hmm. ñooñu fan la ñuy jëm hmm. ci musiba yàlla ne wala hum adabun azimun mbugal bu mag a mag a mag a mag moo leen di xaar ëllëg hmm. wante ba tey sax mbugal bu mag moo leen di dal ndax képp ku nangulul yàlla nangul iblis wallaahi waaw képp ku nangulul iblis da nangul cheytaan ku seetaan bu mat nag xamoo foo yendu xamoo foo foo fanaan <laughs> loolu moo tax soo leen gisee xamuñu lu ñuy def xamuñu fu ñuy dem xamuñu ki mooy loolu mooy agression bu bari parce que gëmunu yàlla ku gëm yàlla bu baax a baax doo ku gëm yàlla bu baax a baax a baax doo violé ku gëm yàlla bu baax a baax a baax doo sàcc ko gëm yàlla bu baax a baax doo def doo def doo def doo def mm-hmm. ndax lépp ci gannaaw gëm yàlla la nekk mm-hmm. ku gëm yàlla mooy julli ku gëmul yàlla mooy bañ a julli dëgg la ku gëm yàlla mooy def lu baax ku gëmul yàlla mooy def safaan dëgg la loolu ñaañ benn rek la ñooñu nag walahum azabun azimun beneen kuréel bi nag moo gën a dangereux mooy naafiq yi wa min annaas man yaqul amanna billahi wa bil yawmil axiri wa ma hum bi muminoun yuxaadiuuna allaha يخادعون والذين امنوا آه، والله وما يخادعون انفسهم يلا نعم والله الا وما يخادعون الا انفسهم الا انفسهم وما يشعرون والله والله ني لا جوليت لاني مبو جوليت مي دا فك ابليس مو نك سين بير خول ني دغو سي لنن ديف لي لنن سو نيوي جوليت جوليت لاني سو نيوي تي نيوي دي نيوي دي لاني kon nag ñu ngi fi. ñu ngi fale benn tànk mu ngi fi benn tànk mu ngi fale ñooñu nag yàlla neneen. walum azabun alimun xam nga fale azabun azimun la fii alim fale mbugal bu mag a mag a mag moo leen di. xaar ñi nag mbugal bu méttee méttee méttee moo leen di xaar. ndax même tricherie bi rek mbugal la. dëgg la de. wax loo gëmul. def loo gëmul sa conscience du tranquille yooyu rek sa conscience bi nga xam ne mu ngi bëre ak sa xol hmm. bëre ak sa xalaat hmm. loolu rek mbugal la wolof dana na ngara bu méttee waaw bootul xara ciy topp <laughs> jeex na kon euh, li nga wax hmm. xam-xam bu rëy la alhamdulilah yow nag yaa wax macha xam naa nag tey dañu teel a dañu dañoo violer charte yi <laughs> ndax euh, auditeurs yi ci lañu bokk yow mi yaa wax xam-xam bi barakallahu kon ñu ngi leen ndokkeel ñëpp est que di ndokkeel bu baax a baax a baax que ci jaar bi ngeen jaar Saint-Louis ndeysaan jokk foofu mbokk jaale sunu jur bi fa jóge woon temps yële ci gannaaw. soxna Xadisa. soxna Xadisaar. waaw soxna Xadisatu. Xadisatu. waaw yaayu Bacci Ndiaye. Bacci Ndiaye Alhaji Bacci njaay bi nga xam ne moom imaam la fii ci zawiya bi. muy soxna Xadisatu Ndiaye. mooy soxna Xadijatu Ndiaye. ku baax la. wallaay wallaay te li ma neex ci soxna soosu. Mhm. moom laxdari rek moo nekk léppam. wallaahi wallaahi ni mu mokkalee laxdari dafa jéggi dayu. ku baax ñoom ñëpp ay taalibi lañu. dañoo jàng bu baax a baax bi ñu mujjee dem foofu mu ne moom li ko naqari mhm. daayira sëriñ Babacar bi nekkoon foofu bi mag ñi demee ñoom ñoo ko wuutu dëgg la waaw ñoom ñoo doon togg dëgg la kenn ku ne da jëloon volontaire bii dëkk ak bii dëkk ak bii dëkk yaa leen di nekk seen njaati gi lépp lu ci war wallaay mu ne wante li ko métti mhm. ñoom ñëpp dem nañu mu ne lu ci des dafa néew. mais soo njaboot yi gindiku want na. Mhm. bu ñu defaree leen relève bi. alhamdulilah wallahi mu ne loolu moo ko métti. daaw daaw loolu la doon wax. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi kon nag ñu ngi lay konti ñu ngi lay mhm. kii bu baax allo ñu ngi leen di ziar ñu ngi lay ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax ndax bi nga demee foofu mhm. dirigé nga jotaay bi alhamdulilah wàcceel nga foofu kaamil def nga foofu ñaan ñaanal ko moom mii fi jóge ñaanal mboolem suñu way dawle ak way dawle yi islam yi jullit yëpp yal na yàlla fay ngeen dëgmal nag xalwaar xalwaar nag ala daaw mi la incha allah mun naa yalla mun na def ñu def spécial xalwaar <laughs> ci xalwaar rek la ñuy waxtaan ak boroom xalwaar mhm. borom xalwaar mooy yàlla mhm. dañuy wax ne borom diw borom bërëb borom bërëb mhm. mais borom xalwaar mooy yàlla subhanahu mais ñi mu dénk xalwaar mooy Mawlana Cheikh El Hadj Moufoudi radiyallahu taala. radiyallahu taala waaw bu ñu wax ne borom ndar. Mhm. borom béréb sangam borom sa. Mhm. déedéet amul benn ku ko moom ku dul yàlla ko nag man utiliser baatu borom dafa ma neex. Mhm. ndax dafa may delloo ci yàlla. est-ce que dañuy wax ne borom dëkk bi. moom moomul dëkk bi yàllaa ko moom. wallaahi dafa ko dëkk dénk. kon nag su ma waxee borom xalwaat. du njuumte. wante dafay dëlloo ci yàlla. ndax lépp lu ñu def foofu mbiru yàlla rek kese la. foofu de am na lu ma lu ko bëggoon kon nag incha allah boobu. so soobee yàlla incha allahu danañu def spécial xalwaar. xalwaar li ma la ci bëgg a laaj rek balaa jotaay ci wàllu aj bi tamit. waaw boobu tamit soo waxee ne am na surprise. am na sur surprise bu rëy. waaw ndax dama doon ñaan sama borom. waaw yal na ma yàlla may kattan. boo yàlla may may ma. su fekkente sama poche lay jóge wala sama xalaat lay jóge wala sama pexe lay jóge man ak yow ñu ànd. ba ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam foofu la sama sama kóllëre ak yow mot ndax ci yàlla lañu ñu walrante ci rasulullah la ñu walrante te insha allahu su soobee yàlla ren suñu yàlla mayee fekkee ak tal man ak yow ak mboolem suñu ujjaaj yëpp ba ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ak yow ak mboolem suñu ujjaaj yëpp ba ci kaabatal musharrafa nañu ñaan yàlla yàlla na yàlla motal yéene googu te li ñu yéene incha allah comme ni nga waxee daawoon na neex daawoon na baax wante maa ngi ñaan yàlla ni mu daan neexe ren na ful ndax am naa ci yéene te yàlla na yàlla def lii nar a ñëwi gën a neexati incha allah ñun ñëpp ñu fekkee ko ñu tal kon nag alhaji eh, Malick Guèye bi nga xam ne moo dugg woon léegi <laughs> kontaan nañ ci moom wante dañoo bëggoon boo daaneel kaddu gi <laughs> jël leen moo taxoon noonu baal ma ak ñëpp ñu baal ñu ak kon imaam Moussa ah, monopolisé naa wax bii wante nag lii ñu tënk rek. mooy kenn ku ne na nga teg laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loo am yàlla. loo ñàkk yàlla. loo xam yàlla. loo ñàkk xam yàlla. loo mun yàlla. loo munul yàlla. lépp loo nga xam daal nga xam ne yàllaa ci dugal loo xam. allahu akbar mais nag nga jaarale ko ci sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ah Thierno ñoo yow la ñuy balu di la gërëm it. jërëjëf di la ñaanal yàlla dolle. la menel, amin dole la katanal amin limay ñaan fi ni yalla na la mottalil sa yéene amin yalla nako def amin te ñu bok fekk lepp te tal amin bi jay sidna muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, ñepp nyungle ñu ngi lay gërëm di la wax jëf ñu ñew ci téléphone yi wa alaykum assalam wa rahmatullah waaw Fatmata Fatmata waaw dama leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi lay delloo nuyu ak ziar jërëjëf waaw maam kontaan nañu ko. sant yàlla te yàlla yóbbee ba suñu waat ci jàmm ba ci jàmm. jërëjëf ñu ngi sant suñu borom. amiin yaa rabbal waaw ànd bi yàlla day àgg ba ci suñu borom. amiin yaa rabbal ah amiin yàlla yàlla yaa dara fatal allahumma seen baat ba dégg ñu ne xaaral ñu dugg. jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla fay leen sàmmal seen njaboot suturaal leen àdduna sutura àllaa yomb na suñu borom sañ na ko yàlla na ko yàlla na ko amiin waaw ñëpp laa ngi leen di nuyu jërëjëf barakallah baax sopp nañ bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar jërëjëf jërëjëf waaleykum salaam jërëjëf waaw fa tabarakallah sunul xaaliqiina allo salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah barakatu ñu ngi leen di ziar. ñu ngi leen di delloo ziar Ndiaye. rafetlu jotaay bi. jërëjëf. yal na yàlla dégg nañu korom ndeysaan. alhamdulilah. yal na yàlla defal dégg ak topp. amiin amiin di jaay Sidna Muhammad. ñu déggee ñu defee ko. amiin. te di leen baalu àq bu baax a baax ngeen baal ñu àq. yal na leen yal na yàlla boole baax. ay taalibe yu matul lañu. saa bu ñu duggee rek. ñu ngi leen koy baalu àq bu baax a baax a baax. amiin yàlla na yàlla boole baal. di di leen wax weer bi ñu déggoon. Mhm. yàlla ñu tudd alhamdulilah rabil alamin. amiin génn si alhamdulilah rabil alamin. amiin amiin amiin. nga xam ne weeru promotion la. Mhm. dañuy weer yaagul. Mhm. suñu weeru koor sax la ñuy dimbalante. wallaay. yàlla yàlla amiin yaa rabbal aalamiin. mu leen jotal sama nuyoo seex nag. jërëjëf amiin yaa rabbal aalamiin. nee na mu ngi leen di baalu àq bu baax yéen tamit. jërëjëf nee na Thierno. sama seex nee na mu ngi lay baalu àq bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf kay kay jekk la. nee na wuute waaye xelam a ngi si yéen. ndeysaan parce que. di leen baalu àq bu baax a baax a baax. baarakallah yàlla yàlla def Safina TV daal. amiin yaa rabbal aalamiin. jërëjëf. yàlla yàlla yàlla lépp jërëjëf Guèye. baarakallahu sëñ Guèye kii ku baax la waaw ndeysaan El eh, Hadj Malick Guèye eh, ah eske est ce que ak El eh, Hadj Ndongo Ly Guèye ndeysaan ñoom daal jaabaar lañ eske wante moom moom amul benn émission bu muy rate tubaar mu woote ci mu ñaan ci yàlla ndeysaan yàlla na ko fay amin ya rabbal alamin ceen li ma bëggoon laaj rek balaa kenn duggaat mooy xalwaar dañoo gis néeg ba Maulana Cheikh El Hadj Mar gane àdduna ne ñu ngi koy liggéeyaat ma bëgg laaj ndax dañuy koy liggéeyaat mu wër néeg ba noonu wala nañu ko tabaxe tabaxu ban day deñ wala yu déedéet alhamdulilah boobu sax maa ngi sant di gërëm waaw suñu benn auditeur bu tudd Thierno Souleymane Sy bi ki nekkee euh, bopp kër bi mu déggee ne ñu ngi dem xalwaar dafa jógee këram ñëw ba fi génne participation ci tabaxu xalwaar wala ci liggéey xalwaar moom ak doomam ak soxnaam ak ñeneen wante ñoom defa ma marqué def at yi avancé na mhm. bët yi neexul trop yat la yor di dem mu ñëw ba fi génne cent cinquante mille francs joxe ma ko ma boole ko ci enveloppe li nga wax nag mhm. mboolem tabaxu cosaan mhm. bi nekkoon xalwaar jumaa ji jumaa ji ko toj néegu fi mu gane si àddina duñu ko toj mm-hmm. Mm-hmm. néegu fi nga mu doon def xalwa duñu ko toj mm-hmm. dañuy def def bi nga xam ne day protéger wu te dara du ci yàqu incha allah loolu mooy euh, suñu xalaat parce que euh, incha allah te defe naa nit néeg ba mu gën àdduna ba it lu koy liggéeyaat ci sa loxo la ko Thierno Mouhamed Bachir teg waaw Thierno Bachir moom. Hmm. borom kóllëre la. ndeysaan. dafa ko teg suñu loxo. Hmm. même bi ñu demee ci jotaay bi microcentral bi bi mu jëlee kaddu. Hmm. jarabaatam la moom ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay. mais dafa ma woo man ak Chérif Mbacké mu ne yéen a ko jox. ndeysaan. ñu ne waaw mu ne wante waru leen ko jox ndax man ci seen loxo laa teg xalwaar. ñu ne déedéet dañoo mankoo ci kaddu moom na nekk microcentral est-ce que mu ne kon nag comme yéen a ko jox li ma waxoon démb ba tey maa ngi ci est-ce que Thierno Bachir du fàttali du fecc colère su la joxee baat soo la joxee bopp directeur bi moom mu ne liggéey xalwaat ci seen loxo la ñu ko teg lépp luy dugg ak lépp luy génn yéen a ko xam yéen a koy def comme ni nga xam ne ne wóol naa leen ci biir ak bit rawatina tant bi luñ ci wax luñ ci jëf luñ ci dajale ci seen loxo lay tegu teguwul ci loxo taal teguwul ci loxo xaydara teguwul ci loxo sama doom yéen mm-hmm. ñaar laa jox xalwaar mm-hmm. ku ngeen cëral nag yéen a koy cëral mm-hmm. alhamdulilah rabbil alamin yàlla dogal ñu am équipe bu am solo ñun ak Cheikh Omar bu xalwaar ak waa yenn ci waa xalwaar ak Cheikh Omar Bachir wante man Maki daal sama xarit sama doomu sama seex ci wàllu Thierno Bachir ñoon ñoo taxaw lépp yàlla dogal tamit lépp lu ñuy def dañuy waxtaan fii balaa ñu dem hmm, hmm. kii wax ñoom ñoo koy ñun ñoo koy bind ak lépp lépp lu ñu dajale woon xalwaar tamit mu ngi sama loxo waaw lépp lu ñu dajale woon xalwaar hmm, mu ngi sama loxo ku ci defoon tamit benn naa sa tur ma commission bi su ñëwee ma teg ci seen loxo ma génne ci bi ci desit est-ce que comme liggéey bi yaa Cherif Macky Thierno ni mu leen ci wóoloo ba teg ko ci seen loxo ñu jëlaat lépp na mu toll versewaat ko ci sa loxo ndax dañuy continuer ba tey ku bëgg a participer ci liggéeyu xalwaar ndax da ngeen a ubbi compte pour ñu leen def fii wala su boobaa nu muy deme bon ñun li ñu ci xam mooy am na point de récolte. Mhm. ku dem ci Thierno Bachir jox ko. Mhm. dafa koy versel ku jëm ci Chérif Mbacké dara jox ko def ma koy versel ku ma jox dema koy garde bu commission bi daje ma jëbbal commission bi xaw ma nag ndax am nañu compte xaw ma ndax amuñu compte wante man dañu ma wax ne nañu versé ci commission bi commission bi tamit ki ko jiite mooy Ahmadou Samba Tall moom euh, mos na nekk fii directeur cadastre Mm-hmm. ñoom ñoo yor plan xalwaat ñoom mm-hmm. ñoo defax loolu yëpp lépp li nga xam ne ñu ngi tabax foofu mm-hmm. ñoom ñoo koy defar te incha allahu léegi liggéey bi encore génne avancé waat ba ñu xam avancé na te lu ko loxo lu wóor la parce que su ma ci defee un million ñoom ñu def ci deux million su ma ci defee nangam ñoom ñu def ci leneen kon ki ci def te yàlla dogal na ñoom ñëpp kenn ku ne am nga sa situation incha allahu defa wóor ndax kenn ku ne ci ñoom liggéeyal Cheikh Omar ci biir xalwaat loolu moo tax ñu jóg Thierno Bachir loolu moo tax mu jóg ñun ñoo loolu moo tax ñu jóg man su ma joree xaalis bi xaalis bi dafa mel na xalu safari sama loxo Thierno Bachir moom buggul sax jege xaalis bi soo ko waxee xaalis mu ne déedéet yóbbu ko defal yóbbu sa xaalis man duma ma jege xaalis xalwaat moom moo ciy def bien vrai que dafay ci def lu baree baree bare mais même suñu ñëwee ngir bëgg a barkeelu ndax moom dafa bëgg a barkeelu Cheikh Umar bëgg a barkeelu ci njaboot Cheikh Umar képp ku sant taal Thierno Bachir jox na la cër mooy góor mooy jigéen mooy mag mooy ndaw mhm. mu def boppam taalibe ci sa kanam ba soo moytul sax da ngay foog na ne yaay lépp mhm. noonu la ko yàlla bind moom Thierno Thierno Bachir moo tax Hachim mais même bëgg a barkeelu ci xalwaar mhm. def na ci un million cinq cent suñu rakka di doomam Cheikh Omar. Bachir def na cinq cent mille. kon ñoom ñooy def lépp. ku lekk foofu Thierno Bachir. ku naan foofu Thierno Bachir ku ñëw foofu Thierno Bachir lépp lay def suñuy tabax foofu lu mu ci def kenn du ko yëg mais nag ngir bëgg a barkeelu ci xalwaat moom tamit noonu. Mhm. première année bi ma da lancé appel bi moom santunu man maa xalaat rek mën a Chérif Mbacké lii daal jaaduwul. na di def ñun ñu ngi toog di taalibe rafetul ma lancé appel bi ñëpp def ci man ak commission bi bi ñu demee ci kanamam di ko jëbal xaalis bi def ne nekkoon na cinq millions et quelque mhm. moom si boppam dindi deux millions def ci mu ne man tamit dama ci barkeeluwaat kon noonu la liggéey bi di demee moom du xam couleur xaalis bi xamul xaalis bi ñaat xamu ci dara man tamit lépp lu ñu ma versé dama koy bind jox ko commission bi ñu defal ma décharge. commission bi nag ñoom ñooy saytu liggéey bi. Euh, architecte bi mu ngi tudd Alhousseyni Ndiaye ku baax la ku jullit la ñoom ñëpp ñoo bokk liggéey bi. ak Cheikh Omar Anne ki nga xam ne mooy directeur COUD wante nekkul foofu directeur dafa nekk taalibe. nekke doom nekke xaadim Cheikh Omar mooy ki wut barke Cheikh Omar ci biir xalwaar. boobu nag bokkul ak nekk directeur hmm. mu nekk directeur ñàkk directeur ci la yem hmm. la ci yemal waaw ak beneen commission bi nga xam ne commission bi dafa yaatu mais ñoom ñooy jiite commission boobu hmm. am na it lu ñu fa seetlu waxtu yu jot na ba noppi waaye na mu liggéeyee kër ga tuddee ko kër Cheikh Alhaji Omar man ni ma ko gisee dañ naan pale la waaw te ku ko ni jàkk dugg fa di nga xam ne alal ju bare bare bare bari dem na fa xam naa maa ngi naan kii di bés bu président de la république wàccoon xalwaar xanaa fii lay dal ndax foofa pale la liggéey ba nag na mu mel ak tabarakallah nu muccee ayib ma bëggoon laaj ba xam ndax li li ñoo tuddee entretien ndax équipe bu koy def ma nga fa wala fii la équipe bi ne te yàlla dogal na ni nga gisee tabax bi nu mu baree bari ak nu mu rëyee yëpp mhm. trois mois ak deux jours la la ko tabaxee mooy quatre-vingt-douze jours allah adr Muhammad mhm. bon man demuma foofu. Mhm. xaw ma foofu du sama domaine. Mhm. mais man maa ngi xalaat di ci waxtaan. Mhm. ci sama njaganaay. naka la ñuy defee pour entretien bi gën a jëkk gën a baax. incha allah suñu dajee ci suñu réunion yi. danaa leen jox sama xalaat. mun naa am sax ñoom tamit xalaat nañu ko wala ñu ngi koy def. mais loo xamul. bu ci avancé. dëgg la waaw mais am naa ci xalaat. alhamdulilah incha allah. ay Thierno jërëjëf jël nañu temps bi ay alhamdulilah rabbi alamina dafa mel ni it ni law nañu. alhamdulilah. ndax ni nga nu lawee. noonu lan la lawee. jëgg la dëgg la. yàlla nu ko yàlla nangu amin amin amin bi jaay sidna Muhammad yàlla may fekkee déwén allahumma amiin ak déwén yu bare bare bare bi ci des rek mooy bala ñoo tàggoo. defe naa. inscription yeeg versement yeeg ci Safina Haj tàmbali na. daanaka place yu mo dess des. Mhm. macha allah suñu waxé né qui versement ki ñu wara inscrire madame Ba mooy mhm. Maymuna Sall. Mhm. ñom ñoo xam mais wax nañu ma barke démb. dem nañu ci quota biñ ñu may. dem nañu ba 60 60 60 qui ci bindu mhm. kon nag ku bëgg a bindu mën na leen jege ci seen numéro yi nga xam ne moom la ñu joxe woon maanaam mooy 77 900 mhm. mooy 900 19 91 mooy 77 900 19 91 boobu moom moo ci moo féetewoo ci liggéey bi mhm. beneen numéro bi nga xam ne ne moom la euh, kéeru ni mooy 77 716 66 26 77 716 66 26 am na beneen numéro mais kéeruwuma ko fii mhm. bon ku la woo mhm. mooy sa numéro mhm. dana àgg 77 66 06. jeex na incha allah. 77. 514 714. 66 06. boobu sa numéro ku la gis ku la mhm. jot jot na. Mhm. ndax yaay lépp yaay président bi. Mhm. man daal maa ngi ci biir wante yaay président bi. est-ce euh, sama numéro tamit ku ma woo. danaa leen jokkoo ak. Euh, ñi koy liggéey mhm. mooy sama numéro 77 544 11 12 macha allah ku jokkoo tamit ak rajo Safina mhm. moom tamit incha allah mhm. dana dana kii mu mel ni it ni jàpp nañu bés bi ñu war jóge fii dem. jàpp nañu lépp. jàpp nañu lépp. su ku ñëw rek dañu la xamal. li nga war a fournir. ak lépp. incha allah te incha allah dañuy ànd ànd ak docteur bu mucc ayib tamit. ndax loolu tamit bokk na ci suñu xalaat. te incha allah docteur bi dina dem. danañu ànd ak ñii ñu jàppale bu baax ci wàllu diine bi. ndax ñun ci la nekk. ci wàllu wér gu yaram bi tamit. danañ ci ànd ci wàllu toppatoo tamit mhm. ujaaj yi jigéen yi mhm. yooyu tamit danañu seet benn jigéen bi nga xam ne mhm. ci lay bokk euh, parce que ñun góor ñi mun nañu leen toppatoo mais jigéen yi fokkee mu am jigéen ki nga xam ne moo leen di gën a jege ndax jigéen moo xam jigéen moromam dëgg la ñun wutunu bénéfice mais dañoo wutu jaamu yàlla ci biir incha allahu dana gën a baax incha euh, su soobee yàlla na mu tëdde woon daaw nag ci wàllu añ yeeg reer yeeg ndékki dana baax dana mhm. dana demee noonu mhm. wala mu bañ a demee noonu ci tuuti mhm. ndax daaw oto li ñu jëloon moo gaw xaw a sori añ yi réer yi hôtel yi nga xam ne moom lañu jëloon daaw dafa sori xam nga prix bi dafay aju ci hôtel bi gën a jege dëgg la yi gën a jege yi nag ak li ñu bëgg a def añ bi am na mhm. astafurlah ndëkk bi am na mhm. réer bi am na mhm. mais añ bi moom des na ma wóor mais ndëkk bi moom ndëkk bu mucc ayib lay doon euh, reer bi tamit reer bu mucc ayib lay doon mooy demi pension suñu demee nag boo xam ne ne ay hôtel bi nga xam ne moom la ñuy jël mun nañu ci euh, def añ mun na mais nag wóorul ndax hôtel bi ñuy am ñàkk añ sax baax na ci ndax doo soo lekk bi bare sa yaram mun a diis ci jaamu yàlla yi mm-hmm. mais nu mu li nga xam ne ne xalaat naa ko te li ñu hôtel bi ñu waxante boo macha allah ñu ngi préparé bu baax mm-hmm. te war naa dem foofu fan yi incha allah pour compléter euh, sew sewaan yi mm-hmm. incha allah am na ñi ñu nekkal foofu ñu ngi waxtaan ci bu baax soo demee boo pare nag incha allah yaakaar naa ñëppay kontaan. alhamdulilah te kontaan moom. kontaan moom kontaan lay doon incha allah. incha kontaan moom kontaan lay doon. alhamdulilah mais euh, añ bi ak reer bi. Mhm. suñu bëggee añ ak reer dañuy dem hôtel fu sori. Mhm. xaw sori tuuti. Mhm. nga dax sooy dem nga dox lu bari. mais nag soo demee hôtel ba gën a jege gën a jege. añ bi ak reer bi day cher. hôtel bi day cher. soo ci boole ndekk bi day gën a cher. dëgg la. su booba man maay dem lebi xaalis pour ah. def ko ci bon mais nag euh, jaral na ma ko su fekkente ne attan naa ko su ma attanul nag <laughs> damay wax ne attan ma mais nag incha allah yaakaar naa ne mhm. ku ci dem doo rëccu ku ci dem moom doo rëccu mhm. su ma yàlla mayee ma dem foofu ba ñëwaat incha allah leen wax mhm. lii surprise yi ah, mais ñoo ko xaj hujjaaj yi ñoom xam nañu fi ñuy jéem fan la ñi jot a dem daal. waaw xam nañu. waaw ñi si jot dem xam nañu. ndax ñoom xamoon nañu. xam nañ du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon. Mhm. ndax dem naa lu toll fukki yoon. xam naa lu bari ci mbir mi dëgg la waaw mais nag incha allah. Mhm. nañu yàlla rek. amiin incha lépp li nga xam ne day noppal ujaaj bi. Mhm. yaa wax nga sànq coono am na foofu. mais coono bi nga xam ne ne ujaaj da koy am. soo pokkente ne cent pour cent la doon am. ñun dañooy fexe boo nekk trente pour cent. est-ce que. boot nit. di ko yóbbu mais nag dañuy oyofal sa coono bu doo yëg coono alhamdulilah ndax expérience ak xam yoon wi dëgg la incha allah yàlla na yàlla sant ñëpp nag di gërëm ñëpp te ñu ngeen bu leen ñu fàtte ci ñaan bu lu ñu waxante yëpp ak li ñuy yéene yëpp yàlla na ko yàlla allahumma te incha allahu yàlla danañ ci def ndax am nañu ñaan suñu sëriñ Thierno Bachir te ñaan ko fanaan àll amin incha allah ah barakallahu Thierno jërëjëf ah léegi ñu dugg nag ci journal bi xanaa tàggoo rek tàggoo bu dul tàggoo incha allahu taala ba dellu si waat ak jàmm talaata wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.